Ismaïla Gueye maa ngi lay nuyu. Oh, soxna si maa ngi lay fay. voilà Ismaïla Gueye nga nekk euh, secrétaire euh, général bu central syndicale. Euh, bu ah. union des travailleurs démocratiques. Ah. déjà fi toll nii ngeen di waajal élection de représentativité syndicale yi. Ah. fi ñu toll nii campagne bi naka la demee. campagne bi de ñu ngi ci ñu ngi koy doxal ñu ngi dem fi ñu war a dem ñu ngi waxal ngi war a muy travailleurs yi. ah naka lay demee da ngeen di def ay visite de de proximité wala lan ngeen di def exactement ci campagne bi. ci yaatal mu expliqué ñu waaw. waaw ñetti yoon yëpp proximité daañu ko def porte à porte léeg-léeg ñu demaat service yi fekk leen fa waxtaan ak ñoom mais porte à porte daa ëpp ak proximité bi. Hmm. d' accord mais est ce que am ngeen ay moyens pour seeti euh, liggéeykat yëpp naka lay demee mooy fu muy jógee su ngeen demee aussi lan ngeen di wax liggéeykat yi si yaatal bu fekkee mën nga ñu expliquer lépp ñu comprendre. mooy de soxna si du génn sunu poos liñ si war a def ah dem fi ñu war a dem lu sunu poos attan wax ak nit ñi ah, bu ñu waree jënd essence jënd bu ñu waree dugg oto dugg oto. mooy daal lu lay laaj ak bu ñu mënee am ay yu ñuy taf ak yu ñuy bind yooyu mooy da ci baax. Ah. léegi su ngeen demee ngeen lan ngeen di wax liggéeykat yi pour ñu mën a euh, voter seen seen centrale bi. ah ñu ko euh, ay syndicaliste lañu ah, li ñu fi ay travailleurs lañu li ñu bëgg daal mooy doxal liggéey bi liggéey bi mooy lan kenn du naan sa ñakk kenn du tuur sa doole. kenn du la sonal mhm. liggéeykat bi def li mu war a def ndax liggéeykat ak liggéey lu kët euh, bu ñuy waxtaanee mën a juboo mën a ànd loolu la léegi euh, tey jii boo ñu doon expliquer euh, Lamine Gueye importance bi nga xam ni élection bi am na ko lan nga ñuy wax exactement élection yi ci côté am na xaw naa baax tane ndax lan kenn ku ne da xam sa bopp kenn ku da nga xam foo toll euh, kenn ku ne doota mën ni laa toll ndax élection yi wàññi na ko loolu la. maanaam importance bi maanaam ban importance la am est-ce que askan wi mën nañu dégg ñuy wax élection de représentativité syndicale mais du ñu xam ban njëriñ daal la war a amal askan wi wala liggéeykat yi. moom xam xamaguñu ko lool lool ndax yàggu fi bi mooy ñetteelu organisation bu ñu ko def. Mhm. kon nag euh, nit ñi ñu bari xamaguñu ko waaye nit ñu koy xam si benn benn ndànk ndànk. Mhm. ba ñoom. Hmm. ñi ko xamagul lan nga leen di wax par rapport ak loolu. di leen euh, jéem a xamal di leen ko fàttali di leen ko expliquer di leen ko nii la ak nee la ni ñu koy defee lii ak lii moo tax mu jóg. d' accord léegi euh, bésu vote bi euh, naka lay demee exactement euh, naka la liggéeykat yi di voté naka la ñuy tànnee centrale syndicale yi nga xam ne ñoo war a ak état naka lay demee. Ah, ah, ah. waa bésu vote bi mi doon mardi le douze décembre au niveau national ci ci réew mi yëpp. ci sous préfecture yi préfecture yi société yu mag yi liggéeyukaay yu mag yi. bépp liggéey koy boo xam ni la fa nekk ëpp na téeméer kees war na faa dem ñu voté fa ni koy voté mooy comme ñu koy voté ci politique bi rek euh, dem ca votékaay ba ci damaase carte yëpp. Mm-hmm. yóbbu sa ruq ba dindi benn dugal sa enveloppe te si waat ci bureau bi dugal ko ci kees gi signé dem si yoon. noonu lay demee donc nekkul mode électronique. Euh, de bi moom nekkul. bii nekkul moom électronique comme ni ñuy voté ay élection présidentielle ak ñoom seen noonu lañ koy defee. bii da ngay sa bopp ak sa jëm yi bopp hmm. bopp fi la neex dugal si fi la neex. Hmm. waaw gis ni euh, depuis quelque temps centrale syndicale yi ñoom ñooy ah. négocier directement ak état ah. Sénégal mais est que loolu ah. aussi duy indi gàllankoor yi si si jafe-jafe liggéeykat yi est-ce que du indi ay frustration waaw loolu moom jaaduwul na ndax bu ñu voté ba pare centrale yi gën a jiitu wala ñi am ñi gën am nu mu tuuti tur ñi gën am doole ah, tax jiitu waa wàññiwul dara ki la nga jiitu ko wàññiwul dara. waaw loolu loolu lu ne dafa am jiit. waaye nag. Mhm. bu ñu bu ñu bu ñu fàtte mukk euh, du droit autorité autorité bu bu ñu fàtte mukk. àqu ñu ne néew ju doole. Mhm. néew ju doole dafa am àq. nit ki ki ci kanam amee àq ki suuf noonu la amee àq. ba tax na lépp loo xam ne ñu ngi koy joxe wala subvention bu si nekk nañuy geestu centrale yi gën a ndaw kenn ku ñu jox la li nga tollool waxuñu ñu yemale lépp yàlla yemalewul yëpp kon ki jiitu jiitu na na mais ki si suufeet néew doole kooku war nañu koy geestu waaye Sénégal daa gisee ñuy dimbali ko am doole bàyyi ku néew doole. waaw mais d'habitude li tax ma poser la question day am frustration parce que ñi jiite souvent centrale syndicale yi euh, seen yëngu-yëngal bariwul liggéeykat yu bari dañuy jàpp ni dañoo jege nguur gi trop voilà foofu lay waxee. waaw ah, jege nguur mel na na am na si amu ci ndax nguur boo bëggee liggéey ak moom bul ko bu mu ëpp waxtaan ak moom mu lay mu lay fajal si bëgg-bëgg. ci say bëgg-bëgg mooy bëgg-bëggu euh, euh, liggéeykat yi ko nag boo leen soree doo mën a waxtaan ak ñoom il faut nga jege leen waaye nag doo doo mel na comme ñoom mburu ak soow waaw doon benn loolu doo ko def waaye nag da nga leen jege jege doo leen sore doo leen sore d'accord naka nga gisee souvent syndicalistes yi nga xam ne dañuy nekk fële ca conseil économique social et environnemental naka nga gisee seen toogaay foofu. waa seen toogaay mooy. dañu xam ne kenn ku nekk liggéey gën moo gën xam boppam moo tax ñuy tànn si liggéeykat yi yóbbu leen fa pour ñu mën taxawal liggéeykat yi foofu loolu rek la euh, moo tax ñuy ñu ñu ne foofa parce que ki xamul xamul sa jàngoro xamul sa tawat mënu la faj. Hmm. moo tax ñu ne foofu. mais dañu gis ne ñooñu bu ñu yoree poste yooyu presque dootuñ euh, kaasa liggéeykat yi loolooy problème bi. waaw loolu moo am na ci. waaw ñu si bëri kaasalut ay Mademba Sock ay Cheikh Diop bëri na daal ñoo xam ne euh, ñu ngi foofu mais déggatuñ leen en tout cas lu bari si yëngu-yëngal yi. loolu la la ñëpp di naqarlu parce que jege mbir yi nekk si mbir mi ñu jox la war a kenn gisatu la kenn déggatu la loolu rafetul baaxul da nga war a jege ñu la fal jege ñu la yëgaloon. jege ñi tax euh, nga nekk foofu waaye kenn gisutu la nga leen mër loolu baaxul kenn ko def jaaduwul jekkul hmm. waaw taxawaayu conseil du dialogue social noo ko gisee kuréel gii di euh, Innocence Ntap Ndiaye jiite est-ce que amal na njariñ syndicaliste yi liggéeykat yi wala amalu leen njëriñ si yaatal. ah ñooñu de ñooñu góorgóorlu ñu ngi def seen liggéey yaakaar naa ni ñu ko waxee doon doonte lee ah, ñoom daal yaakaar naa daal ñu ngi góorgóorlu woon loolu daal leen. Ah, wala xamoo lu bari ci au conseil bi. ah boo fa nekkul amoo fa poste mu doo ci xam lu bare rarement lu ñu fay dem de pour invitation pour yenn kii ñi. Ah. waaye daal pour man daal yaakaar naa ñu ngi góorgóorlu daal. ah liggéeykat yi lañ ko tegal de. waa liggéeykat yi li ko tegal ña ña ña ci di góorgóorlu ndànk-ndànk. Mm. na nga teg di góorgóorlu ndànk nag. fi ñu mm. euh, nii jafe-jafe yi nga xam ni liggéeykat yi am nañ ko ak dund bu cher bi am fii si réew mi nga xam ni pratiquement lépp a yokk ñëpp di ko jooy euh, euh, liggéeykat yi ak dund bu cher bi loo ñu si mën a wax Ismaïla Gueye. liggéey bi ak dund bu cher bi ak ñàkk liggéey bi yooyu yëpp am na fi waaye nag. sante ko yàlla ndaxte dund bu seer du fii rek képp la feneen ak feneen yëpp loolu jamono moo woote loolu ah fexe daal ba euh, mu bañ a accéléré rek relante ndànk-ndànk hmm. waaw loolu la xanaa euh, nga bokk dund bu cher bi yëgoo ko euh, dund bu cher bi hmm. boo ko boo demee si yenn réew da xam ne fii day mel ni yomb na fi par rapport hmm. waxuma nga ne biir Sénégal nii rek dégg ñu naan jooy seer na seer nga ànd si seer na te xamul sax ne seer na wala seeroo il faut nga génn réew mi ba xam ndax fi CFA lu muy jaar kilo ceeb lan la fa lii lu muy jaar boo ko boo ko tollooleeg sunu xaalis da xam ni ñun demeewul noonu fii. waaye dafa am ñu du naan da sonn naa sonn naa dégg naa rek ñu ànd ni sonn naa dégg ku naan am loo jàmb daal fekk yow yëgoo woo dara mais da ngay déggaale nit ñi wax rek nga ànd ci loolu si. nga tu ma ah yow xanaa Ismaël yëgoo dëkk bu métti bi kon kon yow sonn ah sonn de yàlla moo ni mhm. di leen sant yàlla sonn nunu ñi ngi sonn yàlla moo ni maa bind ni ci coono laqad xalaqnaa insaana fi kabadin sonn moom il faut duñu koy def boo tuddoon sa laal sax tëra jóg léegi sonn boo naan bu doon naan ndox tëra bàyyi leen nga sonn bu na tegoon sa glace sa kaw léegi tëggoo teggi léegi nga sonn sonnoom yàlla moo ko boole ak ñun moo ñu ko liggéeyee moo ñaali ñu ko. Mhm. voilà dernière question Ismaïla Gueye euh, fi ñu toll nii yéen syndicalistes yi ban xeetu ban ban njiitu réew ngeen di xaar maanaam 2024 ki ñu war a fal lan ngeen bëgg mu mel lan ngeen bëgg mu jëflante ak euh, syndicalistes yi liggéeykat yi surtout. waaw daañu wax suñu bëgg daanu ñaanet mu mel ne ni mu war mel. mel na ñëpp war a mel nag loolu yu am jafe na waaye yàlla na yàlla may ki gën yàlla may ñu jàmm yokk xéewal gi yokk dund gi yokk wér-gi-yaram gudd fan ak wér ak sutura wasu ko ñu ngi lay remercier bu baax a baax. jërëjëf soxna voilà ñuy fàttali Ismaïla Gueye yow yaay secrétaire général bu centrale syndicale bu union des travailleurs démocratiques ñu lay remercier bu baax a baax. ci waaw ci ci tànk du ko wax merci beaucoup merci beaucoup.